yaa ngi te kurus gi di ñaan. dogal leen ma dogal leen ma benn seet fa gën a kii ci Ndakaaru wala ci ngeen utal ma fa kër gu rëy rëy rëy beneen sëñ Basiru mu gàm bi ñëw Banjul ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw rek bu suma tooma eh. ah suma tooma waaw waaw bu ko yàlla joxee na kii bi bu buy kii rek bu bu waa na ànd ak moom ngeen ñëw gàm bi amul benn problème <laughs> xam nga président bu ees bu nekk Sénégal rek Gambie lay njëkk a tukki fii lay njëkk a ñëw. Ah. waaw yal na yàlla def lépp rek ndeysaan xam nga ah. ñun ñëpp di wax jàmm rek moo ñu tax a jog ak wax lu rafet. Mhm. ak xam liñ bokk. Mhm. waaw loolu rek la coow li lu bëri bari kenn bëggul lu dara yàqu waaw coow li mën naa bëri ci wàllu politique bi. Mhm. waaye buñ demee nag ba toll fii. li ëpp solo rek mooy bu kenn ci ñun gisati boppam. nañ gis ndakk askan wi ak ñun ñooy taxaw ne ñun ñoo war a développer Afrique ñun ñun Afrique ñàkkuñ dara am nañ li gën a am solo. allo ah oustaz waaw je pense que ligne bi rëcc na su nekkee am na keneen rek 77 810 90 90 salaamaaleykum. allo maaleykum salaam. Jaraw. def. maa leen ziar bu naka waa Mbour. ñu ah, doomu baal may ma tuuti volume ah, euh, xaw dafa xaw a dafa xaw a suufee. mooy di rafetlu seen émission bi rek. dégg merci beaucoup euh, voilà ñoo leen di ndokkale bu baax a baax. waaw waaw day nekk samay kàddu rek. Mhm. gis nga Sénégal Sénégal yi laay waxal gis nga day am lu ko lal. Mhm. débat day am discussion am waxtaan woo xam ne day jëriñ Sénégal waaye débat bi ñee génne amul benn am ci élection yi amul benn débat amul benn njëriñ pour Sénégal yi war fa séenee dem la vingt ñu sànn seen di turóom mooy léegi yóbbu ensemble ensemble nationale nañ bàyyi di jéem a dox ci xelu Sénégal yi ak di réeral nit ñi naan ay ak yooyu ay caaxaan yooyu nañ ko teg fële. kon man li may ñaax Sénégal yi mooy nañ jëli seen carte électeur yi fas yéene le vingt cinq février kenn ku ne ci ñun nga jéem ma xool kan nga war a woteel pour mu su maanaam soqali Sénégal. Sénégal depuis mille neuf cent ba léegi ci lii mu nekk war na ci jóge xam nga ñun heure bii un mois des ci élection yi lenn moo waroon a nekk débat bi ana programme bi candidat yi mhm. candidat bu ne génne programme am Sénégal yi yëpp xool di déglu ñu toog ci télé yi di waxtaan naan man bu ma ñëwee lii ak lii bu defee Sénégal yi xool ban programme moo leen arrangé ban lañ bëgg mu jàll ñu jàlle la boobu Sénégal nekk ci jàmm ak salaam waaye bëgg ñu dugg ci débat boo xam ne nii amul bopp amul kenn nit ñi sikki saaka naan day am ak du am te xalaat bu dugal ci nit ñi loo xam ne mënta nekk lu mënta nekk nag jurut ci debaa di ci yàq temps fekkee Macky Sall moo mënta def troisième mandat waxuma laaj nag élection yoo xam ne nii nag Sénégal yi ñoo bëgg ñoo soxlaal seen bopp nañ bàyyi caaxaan te bàyyi seen politique politicien bi ñuy def lii dafa xew ñoom dañoo xamul nit ñi dañ leen a dépassé bi ak boo ko Sénégal yi na teg ñoom lijjantiwuñ leen sax Sénégal yi ñu ngi fas yéenee xaar match ngoon bi nu Sénégal di gagné Côte d'Ivoire après ñu jàll loolu jéem a xool nag nan la ñu demee ci élection yi senegal yi tànn kan lañ bëgg caaxaan baaxul te Martial dama naan ñi ko wër wax yàgg naa ko ko wax nee naa ñi ko wër bëgguñu ko. lij laa walaay bëgguñu ko moom xam na loolu Martial moo daa dem ba ci léegi dem na ba xam lépp. xam na nit ñi bëgguñu ko te dañ koo iñaane xam nga li gën a dee mooy buñ la buñ ko bëggu doon sax mu garaaw waaye dañ koo iñaane xam nga iñaane gi mooy lan Macky Sall lépp luñ def ci Sénégal di jéem ñoom jéemuñu ci génne dara wala ñu wane ci dara mhm. maanaam bàyyi ko mu li yëkkati milliard di leen jox naan liggéey leen gars yi dina ko xaalis di def lu leen neex li gën a échec loo Macky Sall mars deux mille vingt et un dama naan deux mille douze Macky Sall daa amoon ay boroomi xam-xam boroomi intellectuel ñu bëgg Sénégal ñu ko wóoroon. Mhm. fas yéenee defar Sénégal tabax Sénégal ci jub ci droit ci lépp léegi nag 2012 ay nit ñëw fexe ba jaxase kook ñoo ñu ko mu dàq ñëpp gis nga musiba gi am Sénégal yëpp ñoo ko dugal mars 2021 mars 2021 ba léegi musiba gu Macky Sall dugg ñaan nag moom ñoo ko dugal léegi dafa dem ba xamoo fu muy taxaw. fal ñoo xam ne ne ay saagakat ay waxkat bu ñaaw ministre ñoo xam ne ñu toog duñu wax ci bilan Macky Sall duñu wax ci maanaam Macky Sall dana liggéey Sénégal lu dul xëy suba di saaga rek ministre yoo xam ne seen bopp yi ndox nekku ci lii ko yàqal nguur gi lii ko yàqal maanaam nii muy jóge ci état yi Sénégal yëpp mereel ko ñi àndal la war a mere moom na xam na loolu ñaareel ba mooy dama naan gis nga fii àdduna la kuy wax rek waxal sa aqulaay taala te wax dëgg mm-hmm. ma njëkk ko ci siis yi gis nga yàgg na li Sénégal yàgg nañ ne wax ne leen masaraay ba ngeen di jàng xamu leen kan mooy mag Sall bañ leen di ba la seen papa di jàngal ngay ba ngeen di waat xamu leen kan mooy Macky Sall mm-hmm. kon bis bu ngeen toogee senegal gi di àtte àtte leen dëkk ngeen dëgër bopp topp ci mag Sall rek lu mu leen def loo ngi def mu leen di àtteloo salpuloo di def lu mu ko neex xam ngeen ni dossier Ousmane ko bi neen ko traité de lii ñaaw ci Sénégal léegi nag gis nga lam leen doon def defoo tey moo daj seen kaw tey dem nañ ba li gën a kawe ci senegal muy conseil constitutionnel tey ñu ne waa assemblée nationale waa APR ñoo attaqué conseil constitutionnel dañ leen a ger xam nga lii lépp waxoon ne nag ñeneen Macky Sall gëmu dara mhm. kim ngëm mooy ci ko mën a defal sal bis boo ko deful sal bouloo ëllëg ci biir da lay toroxal léegi da ngay def dalaa bëgg fekk ma bëggu gis nga tey mhm. ñu ngi nii Mhm. li ñu leen waxal tey Sénégal dañu teg ci leen seetaat rek nit gëm sa bopp gëm sa réew booy atte nga atte te yàlla rek tax atte dëgg mhm. boo ko rek léegi li ma lay laaj li ma la bëgg a laaj mooy Euh, Ibrahima Pelaye dafa am lu mu souligner mu ne est-ce que li leen mënul nekk xeetu fayanto jëmee ci ni euh, Bassirou Diomaye aussi jàllee ci euh, ci ci yëf yi nekk candidat maanaam su nekkoon ñoom seen bëgg bëgg bëgg-bëgg nekkoon na Ousmane Sonko ak képp ku ànd moom ba ñu nekk candidat Bassirou Diomaye ànd ak moom nekk candidat bu Ousmane Sonko mu daal di jàll est-ce que maanaam jëm la na def loo xam ne ñoom dana leen métti jëmee ci jëmee ci ñoom ndax ni candidat bu Sonko jàllee loolu le laaj la boo xam ne Ibrahima Pelaye moo ko laaj Ibrahima Pelaye wax na dëgg dafa laaj dafa laaj Karim Wade ay Karim Wade jàll ak jàll loolu seen problème bi Basiir bu jàll mooy seen problème. Hmm. biñ lay walaay lépp programme bi lépp Basiir bu jàll lañ bëggoon kut ko kut na ko du jàll. léegi nag fekkee dëgg akulaay taala ngay attee attee lu mel ne conseil constitutionnel am na yoo xam ne dara jar bu jaar bi ñu jàllale Ousmane xam ne ñoom élection yi pare nañ ci. Hmm. lii moo tax ñuy wax Ba mi ñu wax nii Amadou Ba yoonu nekku ci Amadou Ba yàgg naa laa wax fii ne la amul problème Amadou Ba nit ñee koy tooñ waaye Amadou Ba ñu bari ñu ngi koy tooñ Amadou Ba campagne bi muy def daa campagne pour setal boppam waaye campagne ñu pour jël réew. Mhm. loolu nit ñi dañ ko war a xam Amadou Ba pariwul pour yor Sénégal pariwul pour jiite Sénégal. mënut mhm. a jiite Sénégal jamono jii ñu moom daa am bor bu muy fayantoog waa APR ak Macky hmm? man maa la wax de xam nga yàgg naa laa wax lu ma la ci Amadou Ba yow jàpp ko teere daa am bor bu muy fayantoog Macky Sall ak a APR. Hmm. fii la yëf yi toll. waaye moom parewut pour jiite Sénégal parewut pour dem ci élection yi naan day gañe moom xam na ne a gañe bu féete wootam waaye ki mu gañe <laughs> maam gañe gi mu bëgg gañe gi mu bëgg moom dana ko def hmm. la wax nii gañe gi mu bëgg dana ko def waaye hmm. gañe ko waaye gañe gi mu bëgg ko tax a eh, a <laughs> eh, li nga wax doy na ku ko bëgg a weer ma xam na xam na leen xam na gars xam na ne gëmuñu dara gars yi ci ay tànkam lañ nekk léegi nag moom fexe na ba maanaam nekk candidat mu neex Macky Sall mu naqari ko day dem ci élection yi kenn mënu koo téye dem ci élection yi mhm. ndax moom nee na na yi am moom li mu bëgg mooy li ko gay bëgg a yéene mu këpp seen kaw te day këpp seen kaw ndax xam nañ ne Amadou Ba mooy ëpp bopp gën leen a ëpp moyen bu dee ay milliards moo leen boppale bu dee renseignements généraux ci nekk Sénégal Amadou Ba ëppale Macky Sall fopp mooy premier ministre. ah bon nit ñi dañu bàyyi xel lool. <laughs> mais yow attends yow yow yow taxawal. yow yow amoo foo jaar sax tey balaa <laughs> ah déet taxawal tey tey tey fi lu ne daañu maanaam bépp troisième transfert bu nekk ci Sénégal. Hmm. li ci Amadou Ba xam Macky Sall xamul toog ci. gis nga boo gisee man la élection yi dana am. Hmm. nañ bàyyi nañ bàyyi ñuy def ni billaay élection yi day am mu neex Macky mu naqari mu neex ñu ànd ak moom mu naqari élection day am. d'accord Amadou Ba bu nee day am rek day am moom demul pour gagner wax naa la ko demul pour gagner Sénégal. Mhm. am na leneen lu muy fayantoo xam nga mosaan la fii yàgg na na la Amadou Ba ne jël ay matukaayam yokkaat sécurité bi xam ah, nga sax la ko fi wax. waaw wax nga ma ko fi. lu loo gis sécurité bi yokk bu baax fu muy dem da xam lu muy dugg da koy xam. Mhm. man ay yi ma lay wax nii ñu leer naññ laa la yoo xam ne nii am boo loolu ci kanam ngay xam lépp. Mhm. moo tax fii nii nañ xam ne seen nguur jeex na nguur day toll foo xam ne yow mi ko yow sax xam nga ne jeex na nguuru Macky Sall mm-hmm. jeex na ak ñaandal moom Sénégal day changé mm-hmm. te maa ngi lancé appel nag président bii fi ñëw mm-hmm. na nag na bàyyi xel bu baax a baax xam ne Sénégal yu yeewu lay fekk si Sénégal yu am fulla lay fekk si fulla yu am fayda ñu fas yéenee fas yéenee xaar boo ñëwee fulla ak fayda amul bu sàcc anam amul fal ku ma neex fan sama doom wala fan sama rakk. Mhm. fal samay nijaay ak samay bàjjen amatul fii liggéey senegal nekk nee naa kii ñëw fii nii mooy gën a sonn sax waaye nag mooy gën a am ndam moom. Mhm. moom ak lépp ndam lay doon xam nga sonn ba pare amoo ndam moo dal Macky Sall Macky Sall sonn na bay bëgg a dee amul ndam. Mhm. ndax ñu ko jege ñoo baaxul. léegi nag kii ñëw moom dana sonn waaye dana am ndam mooy lan di Sénégal yi bëgg dana ko def dana fas yéene ba boole Sénégal yi fexe ba maanaam signa signature yi ñu def ci wàllu France ak feneen ak feneen yëpp ñu indiwaat Sénégal moom boppam pétrole beeg or beeg yëpp dellu si waat Sénégal Sénégal nekk ci kaw ca kanam ñu moom mhm. suñu bopp deux mille vingt quatre bii la suñu indépendance bi commencé mhm. yërëm naa nag ku ci jéem a xalaat wala nga jéem a sikki sàkkare mën nga cee yàq dara mhm. Sénégal day baax incha allah incha allah rabbi day baax léegi joŋante presse moo la jox ah. pour ñu jeexalee foofu ma ne jongante tey si ngoon bi loo ci wax. soo soo soo daanelee ci politique bi xam nga Sénégal ak Côte d'Ivoire boobu. man hmm. gëm du mat. muy mel Ousmane Sonko Macky Sall. yow xanaa da ngay li saxaar. déedéet dama dama ma li mi ngi mel ne Ousmane Sonko ak Macky Sall. Eh. mi ngi mel ne Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ak Sénégal du mat. Hmm. waaw ma Sénégal jamono ji boo ko see ñi ñi nga naan day li saxaar mu mel ne nekk ci youtube yi nii ñu ñu tudd ay sëriñ nii eh. ñoom ñëpp koo jox mën la Sénégal day gañe xam nga tax ñu wax loolu eh. dañoo fekk <laughs> équipe bu baax équipe boo xam ne ay ndaw ci nekk ñoo hmm. xam ne ñii kuñ dajal dañ lay gañe hmm. moo tax ñu kenn ku ne génn ci télé naan Sénégal yi doo deux zéro trois naa mit nangam <laughs> ba Sénégal nekkee ci ay jafe-jafe ñoo ci lañ la nekk daan ci dal naan day dóor tey bu ëllëgee ñu dóor hmm. waaye xam nañu équipe bii bu dee jàmm salaam rek équipe bu mu dajal attuloo ko ok merci beaucoup. merci kontaan waa yow ah. waaye tey li nga fi bàyyi moom moom tax tax nga ma ñu ko dégg duñu nelaw <laughs> merci beaucoup merci ba ngi koy eh, jaajëfal bu baax a baax ah, mu bokk ci ñi nga xam ne dañ ñuy ah, bàyyi.